tageg na la galang de formation des agripreneurs au cap NFFs de Touba Pécoupe avec FIDA Sénégal war jeex 2025 daanaka feeg juróom-benn at donc dese nañu fi si kanam daanaka lu mat ñeenti at suñ kanam mais balaa ñuy sori si loolu am na ñoo xam ne àndoon nañu liggéey mooy projet bu ñuy wax archipelago. mën nañu ne nag du du suñu premier projet ndax centre la boo xam ne ni ñu ko tëggee mën nañu mën na ànd ak ku ne ndax ñun li ñuy li tàggat xale yi li ñuy tàggat daanaka muy aju si wàllu mbay ak si wàllu sàmm muy producteur en élevage ak horticulture léegi nag lii nag nga xam ne moo ñëw suñu loxo loolu day dugg si xeetu producteur en élevage si xeetu élevage la ndax projet bi ñu séq ak waa FIDA mu jëm si Euh, boole seet yar yar xar wala wala jënd xar duufal ko ay weer nga jaayaat ndax ñoom ndax ma naa naam ñoom commencé nañ ko mais am na nag loo xam ne ñun ñoo ko war a mottali si ñoom waaw no koye jangde gonmi ne koye jangde jahanmi kono noon koye gaynaka mi ko ɗum kollami ko ɗum jiimi eyyi eh, ko ɗum

na wonana min mi minene koye koy amee eh. dañ leen fa war a denc ak fi ñuy tëdd di fa fanaan il faut ñu tàggat leen ci naka la war a mel naka lañ ko war a désinfecté naka lañ leen war a protégé ba nga xam ne que feebar du gaaw a dugg ci ñooñ sa loolu euh, ku wax euh, tàggat il faut moom ay ay euh, spécialiste ci loolu moo tax nag ñu dajalee fi ñi nga xam ne que c'est formateur ak ñi nga xam ne c'est des chefs d'entreprise en élevage comme ñi nga xam ne que dañoo nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla nguur gi dénk ko ñoo xam ne ñi mooy ci niveau école bi ñu tànn si ñoo xam tam ñoo ñëw pour def loolu formation ci jeunes yi nga xam ni ñoom la ñu nar a tànn ñu bokk ci euh, les ce qu'on appelle les agri euh, agripreneurs yi jóge nag euh, ci dëkkuy ndaw ndawaan yi ci biir parce que nguur gi aussi da ko def pour wakiin refee nete laya miyaanu matra ña laa fo vraiment am na kanam yi yàgg nañoo daje ak ñoom war na mat ay ñaari weer wala weer lu topp ñëwoon ngeen fi ngeen daje ak équipe bu pédagogique ba am na lu leen tënkoon ak ñoom ñun dañuy ubbi rek mais liggéey bi li si ëpp ñii ñoo koy def bu leen fàttali ko fii ak fii si ginnaawu weer ak lu topp yéen ñoom ñoom ñi ku ne déglu nañ la ku ne wax nga parce que bi ngeen di présenté wu ku ne nee nga damay damay yëngatu si embouche donc yéen am na lu leen xam si xar ñoom dañ leen di dolli maanaam projet bi loolu moo ko tax a jóg yéen am na lu leen xam si xar daanaka loolu mooy seen métier ñii loolu lañ jàng li leen xam ak ñoom li ñu jàng la ñuy boole ah def ko si ak këyit mën ko jébbal euh, euh, banque bi pour mu financer leen. parce que lépp lépp lépp nag finalité bi mooy ngeen am financement am koom-koom ba mën a demal seen bopp parce que loolu la si FIDA jublu mooy partenaire bi indi xaalis bi moom loolu la si jublu ñu ñu dolli leen xam-xam bind tëggal leen benn këyit boo xam ni moom la ñu wax plan d'affaires nga xam bu leen ko yóbbee si banque bi man leen financer donc loolu vraiment ngeen ngeen xamee ko noonu ginnaaw loolu vraiment ñu leen wax ni ñun ak yéen benn lañu. bu kenn jàpp ni damaa jóge fu sori ñëw fii waaw ku si am soxla bu dee jigéen foofu laay commencé bu dee jigéen la ñëwul si madame Diagne nga wax ko sa li nga bëgg parce que jigéen ak jigéen ñoo mën a waxtaan bu dee góor ñëw leen si ñun ndax góor a góor am na loo xam ñoo ko man a waxtaane leen rek laa leen daal laa xam ne dama ko may góor ñi bu ma kenn wax mu monsieur damaa bëgg a dem seeti soxla si <laughs> waaw loolu moom loolu moom on une croix pour weer mais nous lay remercions de tout cœur directeur jël nañ nuyoo bi ak remerciement bi teg ko sa loxo nga jàllalal ñu leen ko ñu xam ni ils n'ont pas fait un mauvais choix ñu xam ni ñuñ ko jox jox nañ ko ñuñ ko war a jox ñu xam ni bu soobee yàlla incha allah lu ñuy xaar ci ñun dinañ ko am ñu xam ni ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal jaarale ko sa loxo yow suñu directeur Abdou Dieng mais teg ci suñu kilifa bu mag di suñu directrice bu njabootee ñu ñun ñëpp di madame la directrice Maymouna Kanté mu noon nañ wax tey dañuy sumb dara mu ne déet mais kilo la kilo doylu projet bi ñëw doylu ko ne ko motu sax ñuy ñëw dañ lay teewe loo def rek noonu la Alakura Diallo jànke suuf doomu Awa Si ak Aruna Ka maa ngi dëkk jànke suuf di yëngu ci embouche yaram création CAP NFEF le corps professoral asalaamaaleykum euh, waa presse bi ñi nga xamante ne euh, depuis un certain temps wala ay at yaa ngi nii ñoom ñoo nekk di accompagner centre bi tey bu centre bi demee ba ñu xam ko à l'échelle nationale voire même internationale ñii de bay nañu seen waar donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen duñu leen wax ay gan mais fii ngeen bokk léegi bee paase ay gan ngeen waaye léegi nekkatoo leen ay gan fii ngeen bokk ci ñun kon ñu ngi leen di dalal jàmm ñu ngi leen di wax encore massa coono pour voyage bi nga xamante ne moom ngeen defoon ndax xam na ñu déplacement nu mu mel surtout mu doon ay responsable de famille ñu ngi leen di jaajëfal mais en même temps ñu ngi leen di wax massa coono. di ñaanal aussi te di gërëm suñu partenaires comme ni ñu wax mooy waa FIDA ndaxte ñooy suñu wéeruwaay am nañu yaakaar si ñun ba ñëw tànn ñu ñu war a ànd ak ñoom def bi kon nag ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm. di yónnee sunu nuyoo ak sunu gërëmte di jaajëfal aussi monsieur Ndiaye <laughs> waaw waaw monsieur Ndiaye di ko jaajëfal bu baax <laughs> macha allah di jëfal aussi sunu directrice ba directrice de l'ANFEFS madame Maymouna Camara Kanté comme ni mu wax rek la ñun ñi am ñu njiit waaye amaan nañ beneen njiit te mu lépp nag seetul xoolul gëstuwul wóoluñu rek nañu dem leen te ñun tam ñu ngi si dynamisme boobu di ñaan yàlla yëpp ñu eggale kook suñu sago di leen jaajëfal di remercier ñëpp macha allah waa presse bi aussi Oumar saar ak ñi mu àndal ak yeneen équipe yi daal ñëw ñoom ñëpp macha allah lu ñu sumb ñu fekk ñu si ñu leen di ñaanal yal na seen jàmm yàgg ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen wax bismillah man dal leen ak jàmm eh, bu ñu sañoon daañu def suñu kemt lay kàttan ba ku ci nekk durant lim fii nekk xëy na du mën a ñàkk lu mu jàmbat waaye du bari ba lu ci waaye am aussi loo xamante ni gis nga ko ci dëkkin wi ci dundin wi loo xamante ni sooxe na parce que nit matul boo ñu ko déyee daañ ci def suñu kemt lay kàttan incha allahu rabbi ñu ngi leen di ñaan dal ak jàmm galang jaay meyete ma duwaan dangaan asabayo ti gambugo ak njaw ma Makodou maanaam bi box bi di doog a door voilà bi box bi doog a door ma koddu ak docteur Ndour ñoo fi nekkoon léegi bi fi ñu defee répété ba dem léegi ñu dal di indi changé waaw indi rawaan rawaan waaw rawaan ñing rawaan moom ñëw demoon na foire sax mhm. demoon na foire mais après dañ ko mujj jox Yacine Diallo bii waaw foofu lañ ko joxe parce que daa dem ba xajatul fii day mbëkke hmm, day mbëkke ñu dal waaw léegi ñu indi fi encore euh, beneen kuy bu ñuy wax kii nii nuñ koy waxatee maara maara moom itamit box bale la nekkoon hmm. moom itam def fi répété pare ñu dal di koy génnee moom it joxe ko mu dem fii bu fi répété répété waat rek hmm. dootoo fi dem dañ lay joxe feneen. maanaam même même kii bi la lay jox rek xam nga ra waaw. même race la lay jox te gars yi dañuy bëgg maanaam bu defee répétition fii ba pare léegi après nga joxe ko mu dem nga indiwaat beneen am fii répétition voilà parce que doo bëgg maanaam race bi yentaa da ngay soxla lépp nekk benn race bi mais yentaa na nga nga mixé indi fii njaw ma ko yóbbu fee docteur Ndour yóbbu fa li rawaan ku ne ci doomi diw laa soxla ndax am nga ko mhm. nga ne ko am naa ko kii ne doomi diw laa soxla ndax am nga ko mu ne am naa ko wala mu naan la amoon naa ko def naa ko mais demal ci diw kuy baa nga foofa joxe naa fa te répété na foofa bu yàggee sax dafay indi consanguinité voilà maanaam deret ji day jaxasoo fii voilà te dina dem bu maanaam xar bi ci boppam mën na juddu fii dem bu ma jaayaat la xar bi fii nga nañuy tànnee xar ci biir xar yi moom la ñuy wax le choix d'un animal d'embouche d'un mouton d'embouche donc ci biir loolu waxoon nañ l'âge mooy at war na toll ci dix huit quinze mois à dix huit mois moom la war a toll xar mi warta nekk xar bu mag warta nekk xar mu xar mu màgget mënta nekk warta nekk tamit xar bu ndaw ndaw ndaw sinon bu nekkee xar bu ndaw dafa war a nekk ci période de de croissance xar mi croissance la la war a besoin de croissance foofu la toll donc besoin yooyu moom lay njëkk a remplir ba pare bala moo mën a engraisser wu wax nañ aussi sur l' général de l' animal maanaam xar mi dafa war a wér donc dafa war a montrer ay signes bi nga xamante ni xar mi dafa war a nekk en état dans bon point xar mi warta soox biir bi warta rëy cest à waruñu koo sol xar mi aussi dafa war a nekk xar moo xamante ni euh, couleur bi dañ ko dañoo taamu ci couleur bu weex lépp bu mënta weex mën na nekk noir blanc mais na blanc bi dominé xar mi aussi dafa war a nekk xar moo xamante ni aussi xar mu dosil lay doon xar moo xamante ni warul nekk xar muy dugg ci biir xar di mbëkk di mbëkkante sino bu ñuy mbëkkante temps bu mu am pour lekk du ko am dafay nekk foofu di mbëkkante donc xar moom kenn waru ko kenn waru ko choisir produire deful embouche bien avant mais dañuy def production pour am ay doom géniteur la am fii donc bu ñu fi ñëwee expliquer nañ ñu xar bi ban race la même si critères yi sax race bi ci la bokk waaw parce que race yi am na race laadum am na bali bali am na azawat am na pël-pël am na yeneen race yoo yoo xamante ni dañ koy soxla ci biir embouche bi mais fii ñu ngi fi fekk ay laadum donc race bi bokk na ci critère bi waaw. yomb na ba pare vraiment day permettre xar yi mën a dugal seen bopp bu ñu bëggee lekk ngooñ donc ngooñ mi aussi dafa bokk seen aliment moom mooy aliment de base moom mooy grossier parce que xar mi day lekk ba pare di junñuwaat pour mu mën a junñu nag foog mu lekk ngooñ ngooñ moom bu ko lekkee ba pare buy reposé wu da koy génnewaat di ko sàqamiwaat di ko dugalaat donc ngooñ mi dañ na à volonté ak ndox mi aussi à volonté mi ngi fi fekk nañ fi ngooñ à volonté fekk fi ndox à à volonté aussi bergerie bi aussi c'est bien construit fii amul naaj am na ker xari génnuñu dem di wëtti di sàmmi mais ils sont stabilisés mais nag yow bu fekkee dangaa def sa gétt ne léegi damaa def projet boo xam ne déwén damaa war a jaay lépp yow moomu dangay bëgg mu gaaw mais imaginal tey yow yaa ngi feret ci xar yi loo xamante ne boo demee di ko jaay sax peut-être da nga koy ñàkk parce que kut ko kut nga soxla mais kut ko kut boobu li ngay fere ndax xar yi danañ ko jar xar yi duñ ko jar léegi nag bu defee nag yow sa mémoire yaa ngi ciy def ne lii laa fere ci xar lii laa ciy am ah? mais boo ci amul loolu du dem. laaj rek xam na olof Ndiaye ne ku la jiitu si néeg bu lëndam moo lay wan fi ngay toogee aussi man bi ma ñëwee maanaam gis naa mbalka gi si ndox mi ndox mi gis naa ko si biir mbalka gi est-ce que ndox mi su ngoonee xar ndax baax na muy naan guddi walla jarul muy naan guddi te aussi tamit bi ñëwee gis nañ xolti gerte yi nga sotti ko ci am na leen loo ko mélancé te comprendre leen li nga xamante ni moom lañ ko menace ak xool te gerte nga sotti ko xar yi fi ñuy tëdd loolu daal bëggoon naa ñu leeral ñu ko mu mën a xam. première question bi nga ma laaj bi nga gis nii ndax bu guddee ndax bu guddiwee xar war na naan walla warta naan sans départ ci ka ko yor xam nga lépp loo gis rek ca ka fa nekk ak ca base ba la ka fa nekk mais normalement bu guddee mbalka bi warta am ndox parce que xale yi lu ñu naan dañ koy saw te buñ koy saw fii day gën a tooy ngay dégg comme lekk nañ aliment defal leen ngooñ barigo bi warta am ndox dañ ko war a bàyyi mu bidd bu ci lekk ñëw gisul ndox mu bàyyi bu boobaa sax bu ñuy naan ndox ci guddi gi dañuy continuer di saw te saw yooyu day dem ba fi alafe day mujj di tooy dégg ndox mu bari moom saw yu bari beneen question beneen question bi maanaam li nga sotti ci kii bi. waaw lii kopp la gerte moom lañ fi def xoliti gerte li boo koy def maanaam seen doxin du am problème en même temps seen tëddin daay nooy. waaw boo dee moom yàgg nag fii dañ koy xoos génnee ko lépp balaa feli di fi dugg. parce que ni muy gën a yàgg fel yi dañuy mujj nekk fii te doo mujjee dara te fel moom fu mu xes bu dugg pour nga jëlee ko fa problème la voilà léegi nag bu demee bu mu yàgg nga xoos lépp dal di defaat sa kopp pompe waaw pompe ok ok je ndaw bon tey ñu ñëwoon fi doon def benn sorti ci benn berger ànd ci ak suñu formateur yi gannaaw bi nga xamante ni dafay defoon nañ euh, théorie ñu ñëw fii ci berger bi pour def pratique bon bi ñu ñëwee ci biir euh, berger bi borom berger bi moo ñu dalal macha allah mu nekk ku baax moom tamit bon li ñu siy jàngat parce que gis nañu ne tout ce qu'on avait dit en classe bi ñu ñëwee fi gis nañu ko muy par rapport ak position bâtiment bi ak euh, box yi nga xamante moom moo am ci biir nga xamante waxoon nañu ko box bi nga xamante fi la ngooñ mi war a nekk bon bi ñu ñëwee gis nañ les abreuvoirs muy fi ñuy def ndox mi bon gis nañ ne box pour euh, ngooñ mi xar yi gannaaw bu ñu leen joxee aliment ba pare dañoo war a ñëw lekk ngooñ rien que pour ñu empêcher euh, pour bañ a fër voilà et puis gis nañ race bi nga xamante ni moom la ñu waxoon bon par rapport ak xar mi it wax nañ ci état santé bi bon gis nañ ne xar mi normalement dafa dafa war a am wér yooyu yëpp euh, gis nañu ko bon macha allah vraiment bergerie bi moom lépp lépp jàmm tey daal vraiment tout ce qu'on avait dit am nañu chance pour ñu gis ko min garnoɗo wat formation negol dammuwaji joni min gari ɗo min min joni nde min jaltinde komin kalana ko classe fof ko ɗum min jiiɗo en min gaare joni bergerie mo gananta ko moƴƴo yoni komin kalana ko classe fof nde min garti nde ɗo ko ɗum min kolla ɗo ko ɗum ɓe kaali joni bergerie o ko haali ko e o gonɗo classe ko haalen e amen ko fof koyen gootum hono min noon miɗon namdo joni sa dawi mbeɗa baalimaɗi sa dawi mbeɗa ɗi ndiyam joni manam sa yeehi ha yor yoro ari ha joni ɗi cohliyar joni ko ɗon cohlumi namɗo mi haalane question ɗone eh, noon yor yor bi bu ma leen ay jox aliment ci laa leen ay defal ndox mais aliment bi maanaam bu ma defee tey benn siwo aliment damay def ñaari siwo ndox ma defee ñaari siwo ndox mélangé ko buñ ci lekkee noonu ba mu jeex rek suba suba la laa leen ay defalaat ndox waaw loolu laa amoon lu may tontu. mi salmini moon ine ko salum ndaw hannde komin garduɗo mbaɗatnoɗo sorti euh, to joom berge naaɓe nde min ngari ɗo joom berge o waɗi amen dalal ko feewi géeg na la ñu bokk benn kamion kenn ku ne dugal ay xaram léegi nag bu ñu ñëwee fii lañ leen wàccee d'abord ñu def tri bi ñu jaar tout ce qui administratif pour mu bañ a am affaire fraude léegi nag bu ñu defee contrôle yooyu ba pare si lañuy génnee xar yi kenn ku ne mu dem ak ay xaram donc bu ñu ñëwee ba fii yoon may nañu ñu xool lii bu baax kenn ku ne mu def ci jàngat mais aussi may ñu pour ñu xool ci biir tam yéen ñi mun ngeen dem ba ngeen toll ci seen entreprise foo xamante ne mun ngeen élever di indi fii bu boobaa du doon loo xamante benn formation léegi biñ jógee ko ci formation bi ñu yóbbu ci terrain yi pour ñu uti euh, xar léegi biñ demee gis xar bi mu neex ñu mu nekk qualité ñuy waxaale ak moom. soppooy nay daal la wax. lan moom loolu la wax man 60 000 moom mooy prix bi. daal ko ñett. non yii moom fukk ak ñeent rek laa ko mën jaay yàlla xam 75 laa doon jaay wallaay. ah ni ngeen demee nii rek moo tax mu wax la loolu ah. yàlla xam na. fukk ak ñett de moom ñaari ngeen koy jël. fooy di

Alquran mi sappo jeetati njeeni wax na l'essentiel résumé na la journée d'aujourd'hui parce que ñaari objectif rek lañu amoon mooy après apprenant yi demoon gis les marchés de bétail xam activités yi nu muy demee mais beneen bi moo nekkoon ñu mën a choisir seen euh, sujet yi nga xamante ne moom la def pour embauche c'est-à-dire yafal ko pour mën a am ndawal te Euh, wane nañ déjà ñoom li ñu choisir donc gis nañ ne première partie bi ñu defoon ci cours bi muy choisir sa ay euh, sujet déjà ñoom objectif boobu atteindre nañ ko. njàmbaar sur le terrain loolu moom man bu ko waxul woon dinaa ko wax parce que yaa ngi doon gis ñoo xamante ne bon euh, du woon surprise tamit ndax ñoom fi ñu jóge xam nañ ne lii lu ñu xam la mais yenn saa yi nit jóge foofu ñëw. war a amal dara di ci am demi mesure te amuñu ko ci woon benn yoon donc ñu ngi leen di ñaan ñu continuer ci noonu pour mën a atteindre seen ay objectif de formation. ñorul prix bi kay am suñuy njaatige yoo xam ñoo ñuy yoreel prix bi waaye macha allah li ñu waxoon si kii bi yëpp gis neen ko parce que dugg neen si terrain bi wër neen di gis ay qualité qualité yi nga xam ne moo tax ñi uti ko. luñ ñu waxoon ci xar mi gis nañ ko ci xar mi macha allah xanaa yàlla def ci jàmm ak salaam ñu jot ci. te ñu ci retour bi tey dañoo defoon euh, benn sortie pédagogique mais aussi ci sortie boobu euh, amoon nañu tamit euh, achat bu ñu doon def foofu achat bi dafa reposé woon ci xar yi nga xamante ne yooyu la ñu war a def embouche bi ku wax embouche. mooy maanaam xar yi nga xamante ne danga koy jënd nga ñëw yefal ko ba mu am fu mu toll su fekkente ne da nga koy jaay nga jaay ko su fekkente ne da nga koy def euh, tong-tong nga soog kaa def euh, tong-tong foofu de mën nañu wax nekk euh, marché international la ndax xar yi nga xamante ne yooyu lañu ñu jëlee dans les pays limitrophes balaa ñu koy yóbbu ci biir Sénégal fii lañuy ñuy jaar d'abord saytu leen foofu def lu ñu war a def loo xamante ne c'est technique bala ñu koy jox seeni borom ñu soo kaa dugal ci marché national bi foofu tamit bu ñu defee étude ba pare si lañu continuer dem Touba Toul marché hebdomadaire bi nga xamante ne mooy faral di am foofu parce que ci plan de formation bi xale yi war nañu def pratique ci embauche bi léegi nag ci embauche boobu dañoo temoo dañoo demoon ñu xool les qualités critères yi nga xamante ne dañ ko jàngee woon fii yooyu la ñu yóbbaale woon fële pour ñu mën a tànn xar yi ngeen gis nii xar yi fu ñu ne ni xar yoo xamante ne dañ koy téye fii ñoom ñii ñoo koy toppatoo déjà ñu ngi soog a agsi nii loolu moo tax ngeen gis ñu téye leen nii jënd nañu foofu tamit lekk bi nga xamante ne moom la xar yi tàmm mu ngi nii ñu tege parce que tey mënuñu jël xar yi nii ñëw fii jox leen lekk bi nga xamante ne xar yi xamuñu ko miinuñu ko loolu mën na leen indi gàllankoor loolu moo tax bu ñu demee ba ñu tànn xar yi nga xamante ne yooyu lañu ñu am cofeel yaakaar ne xar yooyu ñoo gën ci xar yi ñu jëndaale en même temps seen aliment xar yaa ngi ni tey bu ñu xoolee lu jëm ci weeru xar dañoo ne il faut ngeen xool ci mufle bi bu fekkente ne dafa tooy kon xar boobu lu jëm ci wérgu yaram macha allah lii tooy na ñu ngi xool aussi ci pollure bi mooy maanaam coloration bi nga xamante ne moom la xar bi yor fii weex bi moo gën a bëri lu ñuul li kon ce qui que xar bi fu mu ne nii su dee xar boo xamante ne yaa ngi koy defar pour tabaski bii fu mu ne nii manqué wul dara. su leer na la ne mënoo ko am mais il faut que nga def sa sa kéemtulaay kattan góorgóorlu góorgóorlu ba nga xamante ni di nga di nga am même bu c'est ëpp 50 sax du ko bëri. loolu moo tax ma rafetlu tamit euh, njàngale boobu noonu te euh, gën a gën a mokk loolu te ñu ñu ñëpp kenn ku nekk xamoon na nu ñuy jëndee xar mee nag euh, jàng bi dafa gën a leer ci suñuy nopp. comme sama collègue dañu ko waxee noonu rek tey dañu defoon benn génn bu ndaw ak suñu apprenant yi mooy agripreneur yi ñu yore nii. demoon nañ tey ci marché lu ma njëkk nañ fele marché bu ñu naan xay sawe xay moo nekk si marché Ngoundiane bu ñu Ngoundiane ñu bari xam nañ ko ndax bu tabaski gi ñëwee ñu bëri fa la ñu jënd ay xar dem nañ fa tey di xool xar bu fekkee dafa jóge Guinée dafa jóge Mali wala bu dee bu jóge Sénégal yëpp fi leen di war si yóbbu yëpp fi leen di saytoo seen wérgu yaram ak taxi yëpp fa koy defee pare soog a ci biir marché bi biñ jógee foofu tamit dem nañ si beneen marché luuma buñ naan Touba Toul boobu tamit ñëpp xam nañ ko marché luuma la par samedi la foofu tam demoon nañ fa ànd ak ñoom ñi tey ñu doon tànn xar yi ñu àndaloon ñëpp xar yi ñoom ñoom ñoo ko tànnal seen bopp fekk jàngu jot nañu jàng ay critères de choix yi du ñu tànne xar yooyu yëpp jotoon nañ koo xam bi ñu nag bàyyi nañ leen ci terrain bi saytu nañ xar yëpp ba tànnal seen bopp ba jënd nañ ko daal ba indi nañ ko nii leen ko après ñu fay daal leen livré keneen ku am tamit sa jur koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi bëgg ko fi indi bëgg ñu liggéey la ko saytu la ko tamit nga ko fi ndi soo ko fi indee dañ ko liggéey ko nu mu waree vétérinaire bi fi nekk man ma saytu ko xool boo xam am na yàpp bi baax na wala baaxul su baaxee ñu bàyyi ko su baaxul ñu téye ko. de l' man service élevage laa fi toogal fii ñooy def inspection bi mais moom tout ce gestion de l' entreprise moom moo koy yore. foofu lay jaay fii nag société privée la. ku ci nekk ci ñoom jël na prix chef de l'État. waaw ah. Maama jël na prix chef de l'État Abdou Diouf. Thiawane mhm. jël na prix chef de l'État Abdou Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade kon ñaar ñooñu ñu xarañ lañ ko defar daal fii boo leen gisee seen daal duñ ko exposé sax mhm. doo gis danga leen di fekk fa ñu nekk. te doo ñu exposé daal ca ca àll ba feneen. parce que ñun ñëpp produit bi ñu liggéey mooy produit bi der yi ne mooy jóge fii ñu yóbbu ko Europe liggéey ko ba pare. jël lañu soxla envoyé waat leen déchets yi dañoo ci liggéey ca der yi ah tandis que maa bo der lu ko lu mën a am der bi mooy der waaw ah, yéen a koy. xar ci la ñuy liggéey si ci la ñu ko amee buñ de laalee beneen der xamal ni ñun amuñu der bañ tax ñu laal beneen der te ñoom ñooy code ñuy gën a mag ci Sénégal bu jógee fii daf koy dem weer koy que bu ñu amoon ay moom duñu naaj bi der bëggul naaj bëggul naaj bëggul naaj donc loolu tamit bu la ko nit defalee da koy da da koy sant donc au nom du corps professoral ñi nga xam ni ñooy jàngal élèves yi ak man ak monsieur Dieng bi nga xam ne Mahmoud sa mbokk la n'est-ce pas pour ma tooñ ko vraiment ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm waaw parce que lu mënoon jafe yombal nga ñu ko li mënoon jafe mooy mënoon nga gëstu wala nga laaj ñu damay seede ni ni laajoo ñu benn dërëm ah te boo ko te boo ñu ko laajoon maanaam kon ak ñun ni ñu bëggee xale yi xam liggéey bi kon dinañ ko def waaw loolu tamit dañ koy seede parce que tamit waxul dëgg wax euh, la nekk si ginnaaw dëgg donc il ñu seede loolu. gërëm leen wax ni lii ma leen wax nii loolu du dara ñoo ko bokk métier la moo xamante ñun xam nañ ko yéen xamagu leen ko fu pour ñu leeral leen ko wax leen ko loolu du dara métier der moom nii rek la. metti na méttiwul waaye léegi jamono yi dafay dox buy dox dangay ànd ak doom dox du naar kese mooy liggéey der léegi pël séeréer tukulóor ñëpp war nañoo mën a liggéey der parce que métier la moo xamante ni métier baax la macha allah bu noobu la jërë ngeen jëf o debbo no haalna en euh, guri so ngari ɗo holɗo ndewata donc o wino guri ɗi so ngari ma mbaɗe tawa e lacho na waɗa toon 6 jours so paari fuɗɗa addede waɗe hen saaño saaño ngo kañum noynata nguru kañum ɓe liggorto so gasi noon ɓe puɗɗa waɗoyde heen horom uh, lamɗam e carbonate ko guri ɗi ndewata pour wawa liggoye woni paɗe woni ceinture woni goɗɗum ko watte eyyi donc ko ɗum ɗon dal o waɗatno expliqué joni noon kanko o ɗum ɗo ko meccal mabɓe koye taniraɓe mabɓe ɓe ɓe doni ɗum guila en kañum ɓe liggoto kono liggey o no muusi noɓe liggorto ɗum to less no muusi par ko eh, doole ma tan liggortoɗa joni noon yeehi ha état waɗaniɓe ɗiɗo ɗiɗon joni kañumen ɓuuri wadde moderne ɗo ɓe mbatta eh, lajo o to ɓe mbatta eh, saño ko eyyi na manki noon que ɓe ngala machine aji koɓe golloto e doole mabɓe ɓe guitta tewu walla eɓe guitta sukundu ndu ɗum aussi so ɓe dañino machine aji na walla ɓe hen ligguey o non seulement ɓuura hoybude e mabɓe kadi ɓuura yawde bokk ci bokk ci réyit mu regroupement des éleveurs intensifs de Thiès ñu boole woon ñi ci ñi nga xam ni tànn ñu ñuy fukki éleveurs yoo xam ni que ay tuteurs la ñu woon doon encadrer des jeunes yoo xam ne dañu bokk ci Agri Jeunes projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs euh, ci Thiès. yaa wi sa suñu suñu suñu suñu grand monsieur Dieng jiite woon ko bokk NFEPS ci loolu daal la ñu nekkoon di ko di di ko def nekk di di tàggat xale yi pour ñu xam exactement naka la ñuy yoree euh, xar yi kon bokk suñu boolee ñaar yooyu fexe euh, ndaw yi am euh, xëy fexe aussi tamit li ñu soxla ci ay xar yokk dafay doon une pierre de coups léegi nag euh, vraiment man démarche bi ñu ko defee dama koy rafetlu dama koy rafetlu lool parce que déjà c'est pousser les jeunes à rester dans dans les dans le monde dans le monde euh, rural ba pare euh, suqali consommation bi locale nga xam ne du ñu jiggaani feneen ay xar fu mel ni Mauritanie fu mel ni que fu mel ni que Mali on calminaama on njuuraama on njettaama no feewi min mbiyeteemi ko Biram Ba Euh, kon mi ko commune janke euh, garmin noon hannde ko ɗeɗo balɗe ko thiés ɗo wiyete centre monitrice mo touba peeku min ngari ɗon wadde formation mo ngannduɗa ko formation en embouche euh, min mbaɗi ɗon hedde balɗe nogas e hunde min joni minen ngari he gedduji ɓe ngannduɗa kamen goni éleveur mawɗi min ngari hen wadde stage wona balɗe sappo joni e nder ɗum ɗon nde min gari nde wah deg yalla euh, waaji o momin gari biyeteɗo amde ko waaji mo ganduɗa o ko jaajaɗo ko labɗo reedu ko mo ganduɗa o ko jiɗɗo sukaɓe par ce que guila min gari e dow mum min keɓani hay caɗele goote nde aussi miɗo wondi e ɓe ganduɗa ɓe biyeteɗo premièrement oɗa ko sadi o wiyete mo waɗi kam ko janki suuf mbiɗo wondi e hawa ba e onne kadi hoɗi ko janki suuf e ayssatou ba on kadi ko janke e maada ndaw ko minen ɓe jowogari e, e centre e, e, e bergerie amdi moustapha ñingue e mhm. Mhm. e vraiment min jangui ɗo goɗɗum par min jii ɗo kañum surtout komin gari ko ɗo hedde balɗe sappo ko waɗi ko utilisé gooƴe heewani kam ko ñamde nde ganduɗa nde ko wona maaro heddi ko walla Eh, eh, ñameje kedditeɗe ɗe ɓe ka o hawrindinta o defa o waɗa e o defa ɓenda o adda o diñana baali makko te aussi ɗum ɗon ko amélioration par que waɗi ittina gooƴe kadi minen par rapport no min mbaɗatno minen ko gooƴe tan min jaɓnirta sabu hay sa weɗide lacciri mbaalne ndi anni noon ndi doga reedu mbaalu ndu walla fifna mbaalu o assalamu aleykum maa ngi leen leen ziar Euh, di sant yàlla bu baax ci seet bi ngeen ni seet si man la Papa Samba Ndiaye ñu gën ma xam ci Pape Ndiaye waaw nekk éleveur dëkk fii Thiès Diamaguène Angal Lawbe waaw bi nag nekk nii moom fi ngeen ma fekk nekk ci ah, juma Angal Lawbe rek juste benn kër moo dox suñu digganteeg jumaa ji waaw ñëw nag ñu indi doon ñu ay jeunes ci projet bi ñu leen di former ci ko ni ñuy defee suñu élevage mais vraiment tamit vraiment ñi ma fi yor. Euh, ay jàmbaar lañ lool parce que ba ci euh, démb rek maa ngi envoyé monsieur Dieng euh, yenn yi ma doon yenn technique yi ma doon def ak ñoom mooy ni ñu daggee weewu xar yi ak yooyu te ñoom xamuñu ko woon ñu leen appuyé yu baree baree baree bare chaque nag ma nekk ak ñoom ñu nekk ñu jàmbaare lool macha allah. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit sa suñu gi bi ñu fekk fii vraiment bi ñu ñëwee fii tamit gis nañ fi xam-xam boo xam ne nii dëgg la ñun ci xar la ñu juddoo mais nag xam-xam bi ñu gis fii ñun xamuñu ko woon. parce que boo ñëwee fii dañ la woon loo xamante ni euh, mosoo koo gis c'est pap vraiment wan nañ ñu loo xamante ni tamit euh, bët bu set mu ñuy woon lu bees ay nu ñuy daggee xar yi ak euh, ban vaccin moo baax gën a baax ci xar yi vaccin bu nekk ak turam ak li muy jëriñ yooyu yëpp gis nañ ko te yombul quoi parce que ñëw nit jàngal la xam-xam boo xamante ni tamit daf la koy pratiquer ngay gis. du lu yomb vraiment Pape euh, jàmbaar la bu baax a baax euh, jàppale nañu bu baax ci wàllum xam-xam bi gis nañ fi lu bees loo xamante ni mu suñ koo gis waa. kontaan naa ci question bi nga posé bi bi xale yi ñëwee pour seen stage yu 10 yi ñu fi nekk au premier début euh, premier deux deux premiers jours jël mooy maanaam au début wan wan wan nañ leen ci premier jour ñu fi ñëw ni ñuy tàggatee ci xar yi. ni ñuy sangee xar yi ni ñuy sange xar yi ni ñuy jàppee ni ñuy ni ñuy ni ñuy traité gétt gi ak maanaam ni ñuy xonte xar yi premier premier temps dañu njëkk a wan. deuxième deuxième deuxième journée bi ñu jël mooy dañ leen wan ni kaaf gi nii nañuy sangee xar yi nii leen wàccee nii leen jàppee nii lañ leen di traité mooy jàngal leen ni ñuy pikiiree jàngale leen ni ñuy faje xar yi jàngal leen ni ñuy génne doom yi bon bi ñu topp ñu jàngalee xar yi bi ñu nekkee chaleur ni ngay xamee nekk nañ chaleur ak ni ngeen di croiser ak ni ngeen di boole yi ànd yor ànd ànd yor ànd duñu ànd troisième journée bi ñu ngi jël maanaam ci xont bi xont bi mooy li ñu leen di xontee le matin li ñu leen di xontee le soir ni ñu leen di xontee ak xar koy traité ak xar bi am feebar yor sibiru ni ni ñu koy traité ak xar boo xam ne dafa am dafa dafa tétanos du ko jàpp ni ñu koy ni ngay dafa tétanos du ko jàpp tu as bi ñu topp ñu jàngal leen xar yi temps bii nañ leen di ferale temps bi nañu tëboo temps bii nañu nañ leen di maanaam nañ leen di nañ leen di nañ leen di nañ leen di bàyyee ñu jël seen noppaluku am na heure am na heure boo xam ne day bàyyi xar yi noppaluku yëpp jàngal lañ leen ko ci biir ci biir jàngal bi jàngal lañ aussi ñoom ñu nangu nañu xale yoo xam ni xamuñu mais jël nañ si expérience jël nañ expérience boo xam ni war nañ leen maanaam ci 10 jours yi ñu daal war nañ leen vraiment vraiment loo xam ne daal ñoom bu demee bu ñu demee bu ñu poussé tuuti rek nañ ñu ci xam tey nga jot ay ndam yu waaw asalaamaaleykum wa ah, yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen xamal ne Oudé moom ndongo la soo xam ne yàlla moo ko mas a xiir ci jur rek depuis muy am fukki at ñaar ba jëm cent ci jur la ko yàlla xiir ah moo taxit wax dëgg yàlla maa ngi ciy sant yàlla ah di ci sant samay waajur ak sama sëriñ bi nga xam ne moo ma jàngal alxuraan daan ma jox jur ma di ko yaral ba tax na tey wax dëgg yàlla yàlla mi ngi ma ciy defal teraanga bu ne di ma ci defal aussi réglation bu ne waaw kilifa diine yeeg kilifa yi ku nekk mi ngi fiy ñëw te dara waralu ko lu dul jur kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla suñu borom bu baax a baax jërëjëf. Euh, tey jii am na ay ndaw yu ñuy tàggat ci projet FIDA Sénégal. financé ah. ko ah. ci projet Agri ah. ndaw ñi ñëw pour xool ñu leen di tàggat ci ni ñu yoree xam xam ci tàggat bi fii. waaw ndaw yi da wax dëgg yàlla yonent bi war nañ fee def tey def naa mooy seen fukki fan suma ma juumul dëgg yàlla saa bu ñu xëyee ñi ngi ñëw di ànd ak ñun. ñi leen di wan nit ñuy xonte ni ñuy yore seen entretien même bu ñu waree pikiir wala dara dañ leen di woo ñu ñëw xool ba am sax ñoo xam ne maa ngi laaj ñu ne ñoom léegi mën na ñëw pikiir ba seen wàllu entretien bu ñuy defar lépp lu ñuy def daal ci xar yi presque euh, le matin ba deux heures mooy ñoo koy ànd ba fi mu toll nii am naa ci ñoom yaakaar ne saa bu ñu demee wax dëgg yàlla am naa yaakaar ne mën na ñoo demal seen bopp ci wàllu jur gi parce que ñoom am nañ ci fulla am nañ ci fayda saa bu ñu xëyee ñu ngi respecté heure yi ñuy ñëw bu baax a baax ba yenn saa yi sax bu leen kaar bii jël si mi ngi leen di fekk ñi nekk ci activité jur gi di dugg di génn ba ci même ginaar yi sax damay gis dañuy dem ba foofu di xool ci pigeon yi ak lépp ma xam ne rek bu leen yàlla dimbalee tuuti ah lépp ñu ci bëgg yàlla mën na leen kaa defal parce que li ñuy wut li ñuy leen di entraîner daal wax dëgg yàlla yonte bi bëgg nañ ko ci mbir moom boo ci nekkee ci bëgg ko rek yàlla mën na cee defal lu kawe sa njort. leen fa li nga xam moom bokk na ci li leen fi gën a tax a jóg te mooy li ñu bëgg rek ndax buñ nee élevage partage mais nag teewul def naa ci ñoom wàllu toppatoo bi comme tey jii saxaar boo bëggee mu am num num traité ndax bañ bañ jour biñ fi njëkkee ñëw moom daanaka alimentation bi laa leen njëkk woon muy wàllu xont bi ndax am xar moom bu lekkul du rafet. tànn ndax nee nañ jur balaa moo regg balaa moo reew faa mu regg balaa moo mën a mbëkke moom wala muy foo faa mu lekk ndax euh, ba ci ñun xale sax dañ koy gis suñu bopp tey ji mën nañoo nekk groupe lu ñuy bari wax bari wax bari bu xiif bu xiif amee rek kenn dootul wax wala bu kenn bu kenn suuree ñeneen ñes des ñëpp dañ na laaj ci taxaw waaye nag jox naa leen euh, yenn information yi bari euh, daanaka ci biir gétt gi moo xam ci wàllu entretien jox naa leen ko moo xam ci wàll di nekk xar yi ba nga xam ni tey xar bu ci feebar aajowul ñu naan la diw kaaxoo sa xar mi dafa feebar boo duggee ci biir gerte gi automatiquement rek di nga xam la moo am tey ndax euh, bis ñëw na keroog mooy wax ak Adama naa ko pourtant tàqale nañ fi xar ak xar mais loolu de jox nañu benn jàngat moo xam ni man de du ma ko fàtte mukk parce que xar bu jigéen bu ñu yoroon ñu doon ko wax ngar ñu jaayoon ko mu nekk Touba ba ñu ko jaayee Touba nekkoon na fa daanaka deux ans bi mu ñëwee fii fekkaat famem xar bi bi ñu ko yëkkatee bi ñu ko waree dugal ci biir gétt gi bi mu yuuxoo ñi mu bokkal ndey ci boppam ñoo ñoo yuuxu tontu ko maanaam yeneen xar yëpp a ngi taxaw mais ñam bokkal ndey ñoo tontu ko buñ toogaatee daanaka ba ay trois heures matin xam nga man sama moom dafa dafa bari lu muy lu muy lu muy gës ñu tëdd ba ay trois heures du matin moom mu ñëw moom mu jaral ko mu yeewu guddi googu ñëw di xool xaar yi ci lu nekk ñu ñëwee mais man ba muy ba muy xoos yëpp xam naa ne da doon jàngaat famille yi ndax man mi daf moom fekk fi may nelaw mu yéema ne ma kaay xool ma ñëw mu ne ma xaru gan bi moo nekk ne man ko waaw mu ne ma ñan la tëddal ne man ko ay famille mu ne ma ban famille famille ban la man ko waa kër bébé Khady la tëddal ndax ñee daanaka ñoom ñëpp ñëw bokk ndey mais bokkuñu baay mu ne lii nag laa bëgg nga jàng ko pour ëllëg ndax say doomi baay ak say doomi ndey yëpp ci yam ñoom ñëpp amal ak ñoom jàmm ndax xar bi bu amut ak woon ak ñoom jàmm tey ji bu ñëwee du bokk ak ñoom ma ne ko waaw ndax li nga ndax lii rek du cadre sax yaa am ko war a mën a xamal ndax bi xar bi ñëwee ci boppam laa ko gisee sama bopp mu ne noo gisee sa bopp ma ko bi xar bi ne même bi nga taxawee gis nga ma gis waxoo ma nag waaye man tamit waxuma la waaye biñ doxalee ba ci biir yaa ngi may doog a wax ndax lii nga ma wan ni ak wax la yaa wi ma dagwa we tageeg na laa